di ñaan yàlla yal la yàlla yàggal ci jotaay bi. yal na ko wér gunge. yal wér gunge. di lay delloo santaat. di lay delloo santaat tamit. ci kanamu suñu xarit. ci kanamu suñu xarit. suñu wëllëre suñu wëllëre. monsieur le ministre mu monsieur le ministre. Alaaji Alioune Sarr. Alaaji Alioune Sarr. bi. ministre bi. suñu wayjur làqoo. bi dafa yebal bàcc siis mii mu ñëw ak ay teraanga yu mag ak kàddu yu rafet loolu lépp doyloo woon nañu loolu lépp doyloo woon nañu ko mu demee ba féex waaye bi mu demee ba féex mu ni bàcc damay dem cene ba mu ni bàcc damay dem cene ba sëriñ aada faw ma dem ba këram ñëw massawu ko ñaanal soxna si ni ko li ma ciy teg nag mooy. ni ko li ma ciy teg nag mooy. ma dugg cene ba mukk. du ma dugg cene ba mukk. ca dew ma ba ci sama baay. ca dew ma ba ci sama baay. sama sëriñ. tàllal ko samay loxo tàllal ko samay loxo. mu ñaanal ma yàlla. ndax cofeel gu ma amoon ci mag ndax cofeel gu ma amoon ci mag ñi. am naa ko ci moom am naa ko ci moom mii. yaakaar ji ma amoon yaakaar ji ma amoon ci mag ñi. am naa ko ci am naa ko ci moom mii. loolu mooy ay tànkam loolu mooy ay tànkam. bi mu ñëwee bi mu ñëwee. ànd ak suñuy mbokk ànd ak suñuy mbokk. ñii waa aaneen ñii Canaba xam nañ leen Canaba xam nañ leen. yéen a ñuy fàttali ni yéen a ñuy fàttali ni. Serigne Canaba Serigne Canaba. Serigne Ibrahima Seck Serigne Ibrahima Seck. mos naa santaane ay tool. mos naa santaane ay tool. masalan mu ni àllarba. masalan mu ni àllarba. na ngeen ma defal nangam na ngeen ma defal nangam ca tool ya. déqi la woon déqi la woon. ba ko aaneen yëgee ba ko waa aaneen yëgee. dañoo bàyyi ba guddi dañoo bàyyi ba guddi. ñu dox ndànk ñu dox ndànk. dem ca tool ya dem ca tool ya. déqi ko dajale ko dajale ko naaf ko laata bët di set bi sëriñ bi xëyee ñu ñëw ni ko tàllal ko loxo yi ni ko ñaanal ñu tool yàgg na la nga bëggoon def nañu ko pas-pas boobu la aaneen am pas-pas boobu la aaneen am ci kër seexu canaba te seeni sët a ngi fi seeni mbokk a ngi fi te seeni jigéen a ngi fi woon waaye juru sëriñ bi yor ko ba Baye Assane mii nag monsieur le ministre suñu baay la waaye suñu xarit la bu ñuy woo bu ñuy woo di waxtaan ak di waxtaan ak ñun barki démb barki dañ koo tudde bis bu rëy dañ koo tudde bis bu rëy te guy yat te yat ay xaadir lañ ay xaadir lañu mu fonk ko lool fonk ko lool jël taawam bi jël taawam bi sëriñ maa jooja sëriñ maa jooja wut ay teranga yu mag yabal ko yabal ko ni ko demal. ni ko demal joxal ma ko kilifa joxal ma ko kilifa ga. boole koog télévision. boole koog ni leen nañ def seen annonce ni nañ def seen annonce. du ma yable ca bis ba du ma yable ca ba. maay ñëw maay ñëw. te noonu la ko defee te noonu la ko defee. ba bis ba jotee ba bis ba jotee. moo jóg moo jóg. mu ni maa jooja nag mu ni maa jooja nag. wool ma sëñ aada wool ma sëñ aada. nee ko nee ko. lu mu jàpp na ko ba lu jàpp na ko ba. damaa bëgg su may dem damaa bëgg dem. mu nekk sama wet sama wet. keroog ñoo ànd keroog ñoo ànd. ba bis bañ fay jógee deux heures jot na noonu la taxawoo noona la taxawoo njaboot bi sama yaay génne àddina bi sama yaay génnee àddina ma xëy suba teel ñëw fa ma xëy suba teel ñëw fa wax ko ko wax ko ko mu ñaanal ko mu ñaanal ko damaa génn rek damaa génn rek mu woo leen mu leen ni leen bis ba ni leen bis ba lu fa war a dem lu fa war a maa ko war a def jël otoom jël otoom sëf cay teraanga ba mu fees ànd ak maa jooja ak ibra ak xale yëpp ñi ñëw wàcce ko ca kër ga ni bàyyi ne fii lu fi waay def moom nga ko dem dimbale taxawaay boobu la am ci njabootam ñu dem ba di ko denc mu àndaat ak njaboot gi ñëw ci bunt jumaa ji seede ko kàddu yu rafet seede seede ñu kàddu yu rafet loola nag su ko sa kilifa defee bu say soppee ñëwee ci kanamam nga feeñal ko lu mu xat-xat ak lu mu yàkkamti yàkkamti ñu feeñal ko ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaye bàyyi sëriñ bi ñu lay ñaan monsieur le ministre mi yàllaa ñu boole boole ko mboolem canab mu am fi ay taxawaay yu wér am fi wóla rek ñëpp yàlla jaare ko nag ci suñu doomu ndey ji alaaji bàcc siis doomu pam siis la ca canaba gaar muy nit ku baax jaxasoog ñun waaye ministre taxawaayam ci xew-xewi canaba yi ci njaboot gi benn taxawaay rekk la dañ lay sàkku nga ñaanal ko yàlla yàlla defal ko wér gën a guddal fanam ba mu tàllal loxoom yàlla teg ko ci ndax nit la ko xam am nañ yaakaar ci moom xam-xam jiitu na ci moom yar jiitu na ci moom te it nag jëfin da koo def ñun ñépp ñu gis jëf ju ànd ak xam-xam tegu ci yoon ba kilifaam yi ko yilif rafetlu liggéeyam boobu loola am ca moom tey jii nag lépp lu nit di di yootu ci dëkk mi ci réew mi àgg na ci maqaama àgg na ci maqaama boobu. te yàlla mi koy joxe te yàlla mi koy joxe. moom dong fi ne moom dong nga fi ne. te yéen ñii te yéen ñii. dañ leen a yaakaar lool suñu diggante ak suñu borom. xam nañ li nga man xam nañ li la yàlla sédd. ñaan yooyu la ñuy sàkk nga defal ko ministre bi. lépp lu mu am sa njaboot gee ko am. loolu rek lañ doon jiital. Eh. jox kàddu yi moom mu àggale ko sëriñ bi dokkoor ñaanal aleykum wa rahmatullah maa ngi yëkk di samay kàddu teg ko ci loxo yu tedd loxo yu sell di suñu kilifa di suñu sëriñ di xalifa général bu Thiénaba bàyyi sëriñ Xasan Seck di boroom xam-xam di royukaay di soppe maa ngi fàttaliku ci weer yi ci ginnaaw ñëw nañu fi ziyaar si ko mu dalal ñu maag sëriñ Idrissa Gay ak jarbaatam porte sama doomu bàyyi alaaji ngañ demba saar keroog xalaat yi ñu sëriñ bi jox tegtalim ñu jox ñoo ngi koy gànnaayoo ba tey bi may toxu ci kër ma daaro dama ñëw yëgal ko ko mu ni teg ab diir ni ma ah nekk ci nguur ba ñëw dëkk si aka jafe mu ne ma aka jafe foofa rekk lay mag man am na nag lu mu def ci ginnaaw ma ne ko man daal maa ngi sàkku ñaan maa ngi ñëw dëkk si di sàkkuy ñaan keroog bi ñuy dëkk si bërëb bi ñu dëkk si nga defal ñu ci ñaan sekk moor yi ndax xam nañ sa ñaan boobaak léegi ñi ngi sant say yàlla bu baax kon Baye Serigne Hassan ñi ngi lay sant di la gërëm xam nañ ñu tey ji amoon nga xat-xat waaye bi ñu yëgee ni ñëw nañ biir cene ba nga defal ñu lu rëy dépp déplacé wu ñëw dalal ñu ki dafa ko nii bu defee lii dañ ko ciy sant bu baax moo tax daal ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla wéral ay cëram amin yàlla na yàlla yàggal la ci kanamu njaboot gi boroom xam-xam nga boroom xam-xam bu rëy sax ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañu yàlla dafa dogal ñuy dugg ci ay béréb yoo xam ne dafa xaw a sore dañuy dégg ñu koy jëw ci xam-xamam kon jërëjëf Seck ñu ngi ñëw daal tey di la ziar di la tàllal suñuy loxo nga ñaan ci suñu réew mi ci di Sénégal yàlla def fi jàmm ndax Sénégal su amee jàmm ci la lépp xaj ba fii ci Thiénaba am nañu fi yaakaar bu wér wax naa ko sànq kër sëriñ Adama Seck ma ni leen Thiénaba ci histoire Sénégal ci sëriñ mii mën nañu cee jàngal tey lu bëree bëree bëri ci histoire Sénégal avant indépendance ak après indépendance Cenaba dafa am ci loola wàllu gu rëy a rëy amul benn jamono boo xam ni Sénégal nekk nañ ci événement bu mag te Cenaba teewul loola man mën naa koo wax te ci kanamu sëriñ bi moom mën na koo seede kon sëriñ bi ñi ngi sàkku ñaan ci réew mi di sàkku ñaan ci li ñuy yëngatu di sàkku ñaan nga ñaanal seen seen doom ji di sëriñ bàcci siis ak suñu xarit bi sëriñ Adama Seck di suñu wëllëre di suñu xarit di suñu soppe bàyyi sëriñ bi ne fas yàlla nee na jërëjëf Seck say taalibeet ñëw fii jóge aaneen jóge aaneen jóge jobaas te jobaas ngeen bari fa ay bi ñoo ngi sàkkut nga ñaanal leen di jéggalu nag bu baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Seck Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Yacine Seck di ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa bokk yi Baye Serigne Thiénaba moo ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant nee maa ngi gërëm di ñaan ci ñaan goo xam ne ci xol bu eh, sedd la tege maa ngi xamal monsieur le ministre ni ko yow day Sénégal nga am yow région de Thiès nga am région Thiès nag xalifa généraux yi ci réew mi juróom benn la waaye yow mii yow man nga am man maay sa bos ne xalifa yi ci réew mi juróom benn lanu nga dëkk ci région bi bokk ci état bi ci askan ak xeet yow xalifa généraux yow man mii di Serigne Assane Seck maay bos ak nu àddina mën a mel ak tànk bu àddina mën a doxe yow moom maay bos maay bos de boo amee beneen sa fonction moo la ko jox kon dëkk ak judd man moo ma la jox te itam noonu suñu nopp ako post moo yam lu nit yendoo dina fanaan si ci ñun lépp lu nit fanaane su asamaan setee dina yendu si ci ñun waaye yow sa defet bariwul yow wexoo yow lewet nga nga jóge ci sa kër gi ne jëm si sa kër gee jaar ci sama doom ji nga xam ni moom dama ko wóolu di Sëriñ Adama Seck jaar ca moom ànd ak moom ñëw su ko fii loolu mbir la de sama doom ji mokk na rupp nooy na nepp man awma jikko jël kàddu yu neex di ko terale koo xam ni moomul kàddu yooyu man Serigne sekk Seck ma loolu ndax man nit la ma ca xam da koy jàppe jikko ak wu dundin jikko ji ak dundin wi ci nga koy jàppe ci nga koy bàyyee diine ji moom Sëriñ Adama Seck moom lañuy ñuy diglu ci wax ci waare ci diine mokk na rëpp nooy na nepp politique. nee na politique. ak diine. ak diine. mën nañoo ànd. waaye nag borom xel. politique. ak diine. déggoo nañu. mën a ànd. waaye. borom xel. politique. teraanga. ak kàddu yu rafet. bul ko génn. dinaa leen di tere sol dàllu politique joxoñ pouvoir di génn ay ayibam bu ko def mukk soo ko defee pouvoir bi lu mu am ci balaa yow la koy këpp politique bul sol dàll wa di xas say nawle boo ko defee nawle ya nga àggun dañ naan pëccet daw ne soo xasee sam nawle nawle yépp dégg ko dañ lay ragal yow daaw waa Ngombel dañoo def groupe ñëw fii am lu ñu ma tàggu mani leen su ngeen demee topp leen ci ginnaaw Alioune saar ca déglu ko su ngeen ko defee dina leen jig waaye daa ni ñoom defuñu ko waaye ba mu amee jurul dara billahi man sa woy jur maa ko wax fii maa ni leen yéen daal bu ngeen demee topp leen ci ginnaaw Alioune Sarr ni nga def nag politique laaj na ko dem ba nga sol saw dal woo bot sa dallu bokk dugg ci say bokk ngor nangu na ko ak politique politique it nangu na ko politique nag tiraanga ak wax ju rafet képp leneen loo def moo la koy xañ yow nag jikko ji nga yore woon fii ñu xam ko jikko joojee bu ko génn saar sa defet sa njuumte barke salaatul fatiha kenn musuma koo nettali fii ca su amoon ma yëg ko bàyyi waaye jóg gi nga jóg bàyyi ma xel bàyyi xel saal bi ànd ak sama doom ji ñëw toog fii duma ko fàtte jërë ngeen jëf yal na ñu yàlla dimbali yal yàlla dimbali ñay yàllay dimbali yàlla nang ci bokk Sarr jërëjëf Sarr sama xol sedd na tàllal leen loxo yi ba sëriñ ca na ba ñaan ne yaakaaram dolliku na jërëjëf saar léeg-léeg nit dana ah, ah. nit ñaan loo dikk ni ma. dikk ni ñaan nga de. nangu na nangu ma ni ko ñaan googee nangu. du man. at bee. at bi léeg-léegi nit ñëw ni ma sëriñ Asan ñaan gi nangu na ma ni ko du man ëtt bee ko fekk su may demit yàlla na yeex fi laa koy ba jërëjëf Sarr yàlla na yàlla gunge la ba nga àgg mu wettali la bismillah tàllal loxo yi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 ci ànd ak ngeen di ànd ak canaba ti wali say bi ahadun yab xëy an nasuunahu